L'inspecteur des impôts et des domaines. Mamadou Mamadou Diallo. Dolli dolli dina. Dolli dolli dina. Dolli dolli dina. Le pacte est scellé entre les deux villes fils d'Igname. ci kontaan trop li mu réew si def ñëw fekk si maam ñu àndandoo ñoom ñëpp taxaw jàppoo bëgg a jàppale le président de la république pour mu am deuxième mandat au premier tour baax a baax a baax di sant tamit mu néew oyofam ndax mënoon na ko bañ a def fa neexoon mu ne directeur la dafa wàccee boppam xam ne maamu doomu ndeyam la te ñoom ñoo bokk lu ñu gëm bokk ñu bëgg mu jël initiative ñoo fekk si maamu kon nañ ko siy gërëm moom di ko sant euh, maamu doomu fa dindi ku dem kokki tey ànd ak meeru kokki di Pape Diop am na fi ay tendance yoo xam ni li valable ci kokki rek moo valable ci ci ci ci te kokki boobu ki nga xam ni moom moo monsieur le président vous me permettrez de réserver une mention spéciale à celui que j'appelle ma porte d'entrée dans la l'affaire, je vous nommer Mamadou Mamour Diallo. Mon Mamadou j'ai dit j'ai dit Mamadou Mamour Diallo c'est le messie sauveur du département de Louga Mamadou Mamour Diallo c'est l'homme fort du département de Louga Mamadou Mamour Diallo c'est le fédérateur du département de Louga en tout cas avec Mamour Diallo dana réélire au premier tour dama ne c'est le Messi sans Mamadou Diallo doon na demee neneen parce loo wax ci mobilisation bi man ba ma ko gisee damaa tiit. noonu la dafa mobiliser nit yooyu yëpp. waaye liggéey la. te xam naa dooli màkki am na ci part bu bëri liggéey la dooli màkki doo fi mobiliser keneen mobiliser wu fi. leneen lu la waaye wax lu loolu la dëgg. maamul bëggul dara wutul dara soxlawul dara li mu bëgg rek mooy falaat le président de la république au premier tour des élections présidentielles fii loolu Macky moo fi nekk fi nekk boo gisee ku riir dem ci dolli Macky parce que amuñ fu ñu jëm dependen el